moom. émission ah. da ko bëgg a àgg moom parce que. ah oui oui moom instant dama ko intéressé xam naa mais c'est normal. Ah, waaw après balaa ñuy gën a sori man ak yow. parce que tey man ak yow débat bu profond la. Ah, damay bàyyi kati mu. waaw man de euh, parce que ku xam ku xam mouvement xam ne mouvement nit yu bëri ñoo topp si ginnaaw macha allah donc ma bëggoon xam rek nan ngay subvenir euh, si dépense yoo nga xamante ne yaa ngi sa mouvement. waaw sànq xam ma parenthèse la sax merci beaucoup parce que dama indiwaat tuuti maa ngi wax grand Paco waaye ma ne ko man sénégalais yi ñoo ma faj. dëgg la sénégalais yi man fu ma tëdd hôpital benn femme boo xam ni sama xarit la rek dafa bokk ci mouvement nitu dëgg bi Mbayang Dramé ma ngi koy bigab de passage bu baax a baax a baax moom mi ngi Belgique mu ubbi benn cagnotte quoi ubbi benn benn compte litchi moins de 3 jours gars yi def nañu plus de 25 millions. la ni la dañ naan sénégalais jarul ñu xeexal mais man bokk ma ci ñu wax loolu. Mhm. fi ma tëdd man pourtant juróom juróomi dërëm ñaar dërëmu sénégalais yi moo ma faj boo xamante ni lu lew la lu mu wóor ni lii fii la jóge loolu ma ci lañ ma évacué fu yóbbu ma faj ma en Allemagne et tout donc pour man dama pour expliquer la ne gis nga mouvement c'est très gars yi dañu war a bàyyi di utiliser mbooloo mm-hmm. pour régler seen propre ay propre compte ay guerre crypto personnel mm. mouvement c'est très simple xam pour lan la kat pour xeex la mm-hmm. xeexal sa réew da ngay taxaw nga wax li nga gëm ni moom mooy doxal réew bi li nga gëm ni moom lañu mën a taxaw di ñaxtu lépp luy problème comme par exemple ma taxaw ñu taxaw ñun mouvement bi ñu tudd dëgg valeur xeexal ko. expliquer que imam bi dañ ko tooñ bi ñu defee suñuy enquête ba lijjanti ba xam ndekete imam bi dañ ko tooñ ñafe ba mu génn léegi képp koo xam ne yow si biir xeex bi da ngay expliquer waale yow sa conception mouvement concept bi naka lay doxee lan lañ bëggal Sénégal mhm. lan lañ gëm xam nga euh, soxlawuñu ONG parce que ONG organisation non gouvernementale yi nga xamante ne tubaab yi ñoo ko créé te ñoom boo boo ba lekk seen xaalis góor jigéen doo ko xeex dañu xeex góor jigéen dañuy xeex ay ay ay yi gars yi ci yooyu franc yooyu yëpp donc léegi comme nouvel ordre mondial boobu noonu ñun moom lañu bëgg contre donc il faut nga autonome indépendant mais ni ngay indépendant et autonome nag mooy nga fexe ba yow nga dépendre ci sa bopp léegi sa pako day ñëw indi 1000 francs kat yow mhm. sama ñaari junni noonu la ñuy doxee d'accord noonu la ñuy doxee loolu moo ñu yàggale tey fii macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. macha allah Paco. waaw léegi man damay <laughs> poser question euh, bi Pape Diouf génnee àdduna. Mhm. may continuer toujours di wax na yàlla seddali yaxam. Mhm. parce que nit ku baax la woon. xam naa lu bëri def naa benn enquête de proximité xam lu bëri lu mu doon daf ci sutura. Mm-hmm. te nit ñi xamuñu ko woon. Mm-hmm. nee nañ nit toujours saa yu génnee àdduna dañuy soog a xam réellement. kii kii l'été. à fait mm-hmm. ma bëgg a xam ma dégg la euh, période nga ni que Pape Diouf il mérite des obsèques nationales. ma bëggoon xam aussi ni que est-ce que selon vous c'est la meilleure façon de lui rendre hommage. non je ne crois pas je pense que ce qu'il défendait moom il l'a écrit. il a laissé des écrits. Donc, il faut peut-être que les gens exploitent, nos intellectuels exploitent ce qu'il a fait. C'est pourquoi je dis la notion d'anomalie. Il s'est défini comme une anomalie. C'est un Sénégalais, franco-sénégalais qui parle. Hein? Pape Sénégalais, pape, pape Sénégalais, là, il y a un membre, bon, il y a une nationalité française, mais Pape, il s'est battu pour nekk foofu mu nekk. Pour dire que il est noir, oui, il n'est pas français blanc, oui, mais il se bat dans ce milieu occidental où c'est la puissance qui marche. Il est arrivé à se faire un chemin par son travail, son courage. Et pas ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il enseignait dans une université en France, une université privée, de formation de journaliste. Moi-même, j'ai aidé un jeune Sénégalais à, à, à faire entrer ce, ce jeune-là dans cette université-là. Et Pape l'a pris en charge presque totalement. Presque totalement. donc def na loolu yëpp et Pape a fait il a laissé des écrits c'est pourquoi je dis bon il y a des amis euh, je ne suis pas le seul ami de Pape il y en a d'autres comme les Koumé les trucs etc euh, donc il a fait plein de choses mais fi ko nit yi doon fi ko sénégalais doon xaar lañ ko gisul mooy mu ñëw dugg seen poubelle di ko di ci apporter dara et ça c'est une question de rigueur dans la gestion dans sa conception xam na ne su ci duggee il va imposer des normes norme yooyu amul Sénégal. mais est-ce vrai que euh, il a refusé un poste de ministre du temps du gouvernement d'Ablaye Wade. <laughs> ah en tout cas je peux je peux le penser parce que je sais que il a été souvent approché à un niveau très élevé c'est bon euh, le débat d'ailleurs que moi je faisais avec lui dama ko wax dama ko wax ne ko euh, wax ma nga nekk ministre. waxuma nga nekk li mais nga nekk ci poste boo xam ne am presque rang d' ambassadeur mais chargé de de superviser euh, l' évolution des jeunes sénégalais qui sont à l'extérieur notamment en Europe parce que je lui disais qu'il y a beaucoup de sénégalais qui sont là-bas pour une raison ou pour une autre sénégalais euh, comme comme Yatma ou comme d'autres c'est des garçons qui grandissent dans un contexte européen donc ils ont des des normes de vie qui n'ont rien à voir ak ñeneen ñi or lui il connaît ça il comprend ça Et puisqu'il avait atteint un niveau très élevé dans la gestion du sport en, en Europe, je voudrais que moom mu nekk une sorte de maintenant le problème c'était bon ministre moom je sais que wax nañ ci bataille mu ne buggul bu ko bu ko joxee joxee nit ci néegam du ko laal.